jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bi di Nar dal leen ak euh, jàmm Ousseynou Ly bu Pastef moo dal di yëkkati ay kàddu dal di xam ne niki tey jile foofu la ca Médina gannaaw ba nga xamee ne nag ñu ngi amal seen rassemblement fa lañ daal leen di fekk jàpp ci ñoom. juróom ñu jigéen ak ñeent ñu góor ñoom ñu ñu le nag jamono jile ña nga ca loxo yoon ka xam la nag lu ni mel mu di kii di Ousseynou Ly bu Pastef moo dal di xamle lu ni mel teg ca di naqarlu mbir mu ni la moom Ousseynou Ly gannaaw bu mu génnee xamle ne nag dañoo jàpp ci ñoom juróom-ñeent ña nga xam ne nag jàpp googee ñu daal leen di jàpp teguwul ci benn yoon moom Ousseynou Ly ma ngay naqarlu mbir moomee bu baax a baax di wax ne nag jamono jile mbir mu ni mel nag dañu ko war a dal di dakkal di wéy di jàpp ñi nga xam ne nag ñoo di waa Pastef ginnaaw bu ñu jógee rek ngir ne dañuy amale seeni activité fii ci réew mi moom nu Ly nag dal dinay naqarlu lu nu mel la bu baax a baax. jàpp ci lu mat neuf personnes. actuellement ñu ngi commissariat police quatrième. ñu téye. waaw parce que. fekk nañ leen ñu taxaw. Euh, ñu ne leen euh, fii rassemblement la ñuy bañ. te foofu defuñu fa rassemblement. léegi finalement bi ñu leen jàppee pare ana ñu. waaw ñu ngi actuellement police quatrième. bàyyeeguñ ci Euh, juróomi juróomi jigéen euh, ñeenti góor. Hmm? donc ñu ngi foofu ñu jàpp. moom ni lii moo daal di xamle lu ni mel la di wax ne nag ñoom ñi dañoo jàpp ci ñoom juróom ñu jigéen ak ñeent ñu góor ña nga xam ne nag jamono jilee ña nga ca yi yoon na moom Ousseynou Ly dal dinay naqarlu mbir mu ni mel la bu baax a baax ne nag lu ni mel moom dafa war a dakk ndax nag ñu di wéy di jàpp ñi nga xam ne nag ñuy di waa Pastef moom Ousseynou Ly lu nu mel la dal di xamle naqarlu mbir mu ni mel la bu baax a baax gannaaw ba nga xamee ne nag dal dina yéeg génn yéegle ko moom Ousseynou Ly naqarlu na ko bu baax a baax mbir moomee na mu demee moom Ousseynou Ly nag noonee Ndassa taxawee daal di naqarlu mbir mu ni mel bu baax a baax ne loolee nag dafa war a jeex fii ci mim réew muy wéy di jàppoo ñi nga xam ne nag ñoo di waa Pastef